kàddu yi kàddu yi gàtt lay doon ndax ni ma ko waxee léegi fédération Majmahun Nurayni ñoo dikkaat ci kanamu sëriñ bi di ko na loolu mu yàgg fi ci ànd ak wér digg nag kàddu yi xam naa soxna daba lañ koy bàyyeel soxna daba itam kenn la ci ñun di sunu sag ndax yàgg nañ ci biiram te boobu xamuñu ne woon sax ni mu demee ak sëriñ bi waaye bi ñu ko xamee sañootuñoo yëkkati kàddu mu jëm ci sëñ bi te jaarut ci moom ndax xam na ni moom bu ñu tànnalee li gën lañuy tànnal te ñun xamuñu lu baax dañuy làmbatu rek kon mbooloo mi soxna Daba daayira Jazbul Xulub bu UVS këram lañuy daje ba bu ne di fa dundal seenu taalibe ñoom itam bi ñu xamalee ni ni mu demee sëñ bi ñun ñu sàkku woon ci moom mu ñëw ànd ak ñun bis bii ndax kat bis bii bu fi teewee dana doon ci ñun jumtukaay boo xam ni lépp lu nu bëgg moom bu ko waxee sëñ bi sëñ bi dana ko may kon sama kàddu du gudd loolu mooy kàddu yi li des dama ko koy bàyyee moom sax laa jébbal addiya ji ne ko nañu ko joxeel ndax xam nañ ni lu mu jox sëñ bi mu nangul ko kon boog maa ngi maa ngi maa ngi tuubal ñëpp kàddu gi di jéggul baax faal waaw soxna si moo jottali ay kàddu bisimilah Fall. yàlla bindiwuñu dëkk nañu man at yu bari. Mhm. te xam ñu ma demee kii. dëgg la. te kii maa ci moom. dëgg la mhm. ñoo dem ba xamal ko seen bopp. dëgg la ñëw ni ma nag ginnaaw nii nga demee sëriñ bi. dëgg la lépp lu ñuy defat ci yow la ñuy jaar. alhamdulilah njaboot gii ngay gis nag ñuy fédération bi yëpp. Mhm. nekk Thiès. di étudiants yi yàlla dafa ma yàlla na xiir ci man mhm. kere ba ne ñëw sama kër di fa def daayira mhm. xamuñu lu ma doon ci Seex Ibra dëgg la fam li ma la wax rek dëgg la Fall ñun duñu wone wallaahi danoo dox rek ba xamal ko seen bopp dëgg la lenn lu ma leen won dëgg la ñuy dem itam ba xam ne kii toog mhm. dafa am bis ñoom ñii ñu ñëw ni ma yow day hmm. yàgg sëñ bee benn ngeen hmm. man leen ñoom nag waa këram dañ ma fay ndax sëñ bi maa ko dàq hmm. maa ko gën a rafet <laughs> dañoo dem ba xam ko rek <laughs> waaye man du wax ko nga jiital bi nag ñaanalal ma njaboot gii waaw ñoo ma jàppale ci dëkk bii ñoom njaboot gi lu ma soxla ñanga lu ma bëgg ñanga ñoo ma wéttali ñaanal leen bu baax incha allah seenum jàng yegg ak jàmm. amiin am seen i diplôme. amiin liggéeyi nag Fall Ndiaga te fekk la fi. amiin di bëggoon. amiin Fall waaw waaw sëriñ bi ne dégg na ko. waaw waaw sëriñ sëriñ bi nee dégg na ko waaw soxna Daba moo doon jottali ay kàddu yéen ñi mu agsiwut fi yéen kàddu yoo xam ne waa fédération bi si baatu sëriñ Saliou mii toog moom ñoo ko ko jottali ngir mu jottali leen ko si jàpp gu nu jàpp ni xaj na baatam wala kàddoom wala li nga xam ne moo leen boole ak moom dina doy sëkk moom mu yëkkati kàddu si turu fédération bépp di ak njabootam jottali ko jëwriñam ji di magam di sëriñam di xaritam di sëriñam di Fall di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall mu seere si yéen loo xam ne si kanamu sëriñ bi mu yitte ju mat sëkk ju ngeen am si liggéeyam sëñ Touba ak Cheikh Fall ak jàpp gu ngeen ko jàpp moom jëmmam ji ba ngeen xamee ni kii dem si dooretu Cheikh Fall la bokk ngeen jàpp ko ni mu ko waxee téye ko sagal ko di ko teral ngir jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall loola di mbégte fi moom àgg si. mu ne day ànd ak yéen bu fi kanamu sëriñ bi yëkkatil boppam ay kàddu seere lool si kanamu sëriñ bi sakkul leen ak ñaan li nga xam ne moo gën si yéen sama borom defal leen ko muy li ngeen di sàkku ngeen am ko te mu bañ a am benn gàllankoor loolu la soxna si doon jottali ñu ko ci sant di ko gërëm di ko ñaanal sëriñ bi nag dégg na lépp lii nag mooy addi ji nga xam ne waa daayira fédération Majmahun Nurayni bi nga xam ne moo lëkkale mboolem étudiants yi étudiants yi ñi nga xam ne dañoo nekk si njàng mu kawe mi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci njàng mu digg doomu mu di élèves yi ñoom ñëpp rek li nga xam ne ñoom ñu àndandoo xam ne ñoo bokk ak bëgg ñoo bokk yitte muy liggéey Serigne tubaa di bokk lu ñuy sàkku muy ngërëm ci Serigne Touba te nu xam ne mënuñu koo am lu nu jaar ko ci maam Cheikh Ibrahima mii bunt bi moo tax ñu def yitte ci teew fii fi kanamu Serigne bi ni nu ko baaxoo at mu ne ren ñu teew yëkkati euh, xasida yi nga xam ne moom la Serigne bi dégg ñu doon ko jàng Euh, di la ko di la si siyaare mu ànd ak siyaar bii nga xam ni seenu ñaq la ñu dajale ko jox la ko bëgg nga nangu leen ko faal te ñaanal leen sa borom bàyyi leen fi nu yàgg fi sa borom defal leen ak wér te li nuy sàkku si li nga xam ne moom la leen sa borom jagleel ñu am ko te mu bañ a am benn gàllankoor te sunu wajur wii di soxna Daba moom it yàlla bàyyi ko fi si sa ginnaaw mu ànd ak yow lu yàgg lool ba waxtu wu leen soobee rek barki moom Cheikh Fall loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon jottali si turu njaboot gi Serigne Saliou Fall mi nga xam ne mooy jëwriñ ji moom mi ngi nii toog moom moo jiite mboolem fédération Majmahun Nurayni mi nga xam ne fii si Thiès étudiants yi ak élèves yi ñoom ñëpp nga xam ne seen yitte mi ngi si liggéeyal Sëñ Touba ñoom ñoo àndandoo teew fii si kanamu Serigne bi. jërëjëf Fall waaw jërëjëf Fall jërëjëf barakaatu ñu jottali kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyikoo si Serigne Amdi Fall mii toog di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall jëm si yéen mbooloo mi nga xam ne yéen yéenay waa Majmahun nii waaye mu wax ni na tàmbalee kàddu yi rek si jëmm ji fi bàyyikoo léegi muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu Cheikh Modou Moussa nee na di jëwriñam ci kër Cheikh Ibrahima Fall mu teg ko si kanamu njaboot gi muy seere ak cant ah, ak ngërëm goo xam ne gii tàbbi na si moom mu jàll si mbooleem ñi nga xam ne ñoom la jaboote muy njabootug maam Cheikh Ibrahima ngeen am tawféexu teewe mu ñëw fii doon siyaare sëriñ bi si bis bi nga xam ne ñun ñëpp mënu fi dajale mu tàmbalee si ne naa jottalil waaw sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng waaw mu ne sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng moo fi ñëwoon léegi doon siyaare di xalifab Cheikh Modou Moussa Fall nee na nun ñu am tawféexu teewe loolu nee na loolu tàbbi na si tawféex gi nga xam ne nee na nee na nee na sëriñ bi defal nañu ko si jataay bii waaye nee na mi ngi mi ngi mi ngi jottali ay kàddu yu nuyoo ay kàddu yu cant ak i ngërëm mu jëm ci Serigne Saliou Fall jàll ci mboolem fédération Majmahun Nurayni yéen ñi nga xam ne ñëpp yéen a teew fii fi kanamam <clears throat> ak ñi nga xam ne xañ na teewuñu waaye kenn ku teew rek teewal na ñëpp ngeen mbooloo mu ànd te bokk pas-pas bu kenn teewee teewal na ñëpp rawatina mu mel ne li ëpp si mbooloo mi teew nañ fi kanamam mu teewlu <clears throat> xasida yi nga xam ne yéen a ngi ko doon jàng ngir. Euh, gàttandoo ko bis bi ak ngir siyaare ko moom mii nga xam ne mooy jëmmi maam Cheikh Ibrahima boole si addiye jii nga xam ne yëkkati ngeen ko dajale ko muy seenu ñaq wax na ni gis na addiye ji nangu na ko te te nangul na leen ko kon nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal li nga xam ne mooy seenu bëgg yàlla na ko suñ borom def barki maam Cheikh Ibrahima wax na ni kenn ku ne daal yitte ji nga fi indaale boo bàyyi koo fii yàlla na ko suñu borom daal di saafara si doole Cheikh ngir teewaay bii ngeen teew fi kanamam xam ne sedd na ab xolam bég na si lool rawatina ngeen ànd ak njabootam gii di sox soxna Daba nga xam ne fi mu nekk moom la fi nekkal moom la fi toogal te mate ko sëkk nee na loola dolli na xelam mu dal te it mi ngi leen koy dollee dénk nag moom it mu mu di leen dénk yéen soxna Daba ngir ànd bi nga xam ne ànd ngeen ko ngir jëmmi Cheikh Fall sama borom téyel nu ko ba muy lu sax dakk nee na mi ngi leen di ñaanal lii ngeen di yëngu muy njàng mi ak ñi nga xam ne dañoo war a àggal bëgg liggéey ak ñi nga xam ne dañoo toll si war a defi examen ak lu mu mën a doon luy seenu bëgg eh, bu ngeen muccee yàlla sama borom defal leen tawféex ngeen àggale ko ba am ko nu ngeen ko bëggee barke maam Cheikh Ibrahima Fall sant na leen gërëm na leen mu ngi ñaan yàlla nañ fi dajawaat na ni déwén ngeen ñëw teew fii fi kanamam fekk ko fi yéen ñëpp te lépp lu si waaye sàkku si diggante bi yàlla na nga ko am barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax ne bëgg na lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf sëriñ Saaliw bisimilah bu si dara desut de <laughs> waaw nu am am na luñ bëgg a dolli ah, ah. <laughs> waaw waaw kon kon kon nu ñëpp tàllal rek sëñ Saaliw tegal nii ñëwal nii waaw na na na ñëpp tàllal rek waaw sëriñ bi ñaanal noonu wax na ni nañ fas lu nu bëgg kenn ku ne luy sag bëgg nanga ko fas waaw si si si jataay bii sunu borom defal nu ko mu ñaanal nu aju yëpp faju barke maam Cheikh Ibra bisimilah wax leen amiin waaw waaw waaw bu ñu jógee kon soxna yi bu bu bu góor yàlla yi génnee soxna yi mën nañoo dugg ci biir sëriñ bi jàkkaarloog ñoom ñaanal leen su ko dewee nu mën a yeweku kon nañ tàllal tey wax amiin amiin amiin Fall amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin Fall leen waaw waaw jërë jëf jërë ngeen jëf <laughs> ah. waaw waaw waaw waaw maam Cheikh Fall la ko tudde waaw waaw waaw kii da kii da koo tudde maam Cheikh Fall waaw waaw <laughs> tu tàng bëgg nga ñaanal ko Fall waaw Amin Fall waaw waaw addiye ji moo ko joxe waaw waaw maam Cheikh Fall mii taxaw nii waaw <laughs> ak sa waaw waaw <laughs> jërëjëf waaw jërëjëf maam Cheikh waaw bu góor yokkee yokkee noonu rek su ko defee soxna yi egsi